Wagaf euh, tey dañ fi ñëwoon euh, représenter euh, suñu ministre Doudou Ka mi nga xam ne moo yor lépp luy transport aérien ak développement infrastructure maanaam mbirum jaww ji avion yi aéroport yeeg yooyu ci benn réunion bi nga xamee ni Kafac moo ko organisé Kafac nag ci Union africaine la bokk ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci aviation ci biir Union africaine réunion bi moo doon xool naka nga ñuy fexe ba ubbi marché bi ci Union africaine euh, ci réewu Afrique yëpp ñu ubbi marché bi ba nga xamee ni ku ci nekk boo jógee sa avion mën nga dem fu neex bo kooku nag dafa gaaj waxtaan dafa gaaj sensibilisation waxtaan wii ñuy def tey dafa bokk ci ay waxtaan yu bëri yi nga xam ne dañ koy def ndax euh, Union africaine euh, am na ñaar fukki at ñett ci yamu Yamoussoukro nga décidé woon ni dañuy ubbi jaww ji mais ubbi boobu dañ koy def ndànk-ndànk ndax réew bu ne dafa am ay réalité Euh, dañ koy def ndànk-ndànk mais ñu ngi ci def ay jéego yu bëri euh, tey nag euh, Kafac ak ANACIM dañu woo ñëpp ñi nga xam ni dañuy yëngu ci mbirum aviation compagnie aérienne yaa ngi fi syndicat travailleur yaa ngi fi ñiy def assistance au sol ñu ngi fi waa ANACIM ñu ngi fi ministère mu ngi fi Kafac mu ngi fi ñun ñëpp dañu toog maanaam def benn waxtaan pour xool. Euh, naka ga ñuy fexe ba jëm kanam ci ubbite boobu ñu bëgg a ubbi jaww ji ci euh, kaw ci biir Afrique. bu ndaje bi tënkoo gi ñuy xaar mooy ñëpp euh, xam enjeu yi maanaam xam ubbite bi gan moo gan ngay indi gu baax ci suñu réew yi. bu ndaje bi jeexee aussi war nañu xam lan moo tax réew mu ne mënul avancer bu baax parce que bu ñu xamul réalité yi.

def sensibilisation mais nit ñi dinañu waxante deug dinañu xol programme yi am pour mën ko surmonter. justement concurrence bi euh, mën nañu ànd ba pare am concurrence parce que aviation euh concurrence bi euh, wu euh, coopération concurrence wu coopération mais rep dañ koy waxtaanee xol naka nga ñu koy ba mu gëna baax. Euh, ba nga xam ne ku ne gis ci seen bopp ndax nit ñi bu ñu ci gisee seen bopp rek dañuy dem bu nit ñi taxawee dafa di xëy na am na ay réew yu ci gis seen bopp am na ay réew yu ci gisul seen bopp léegi nu ñuy waxtaanee ba ñëpp gis ci seen bopp googu nag moom mooy gi nga xam ne moom nga kafak bëgg a def tey pour ñëpp am information pour ñëpp gis seen seen bopp ci libéralisation bi pour ñu mën a def mise en place euh, mise en œuvre bi libéralisation sud africaine Mounou Wessou, qui nga le directeur des transports aériens Le nga xamee ni transport aérien ci Sénégal man maa ko euh, DG Anassim Sidy est bi nekk le directeur de l'autorité de l'aviation civile Le régulation aviation civile Le nga xam ne inspecter avions yi inspecter aéroports yi moom donc ñi fi ni Euh, euh, ñi nga xam ay ay autorités yu mag ah bu bu bu ngeen bu ngeen ñu gis ak suñuy suñuy veste yu ndaw ak suñuy xaftaan ngeen defee ni autorités yi taxawuñ fi euh, lépp gu ñuy décider ci Sénégal nga xamee ni que président de la République moom mooy définir politique nation bi mais bu président de la République définir politique nation bi mu wàcc ci ministre bi man mi ak moom ñun ñooy responsable yi nga xam ne ñun ñoo koy implanté ci wàllu transport aérien donc ñi fi war a teew teew nañu fi. Euh, kii taxaw nii mom bon euh, Nam jigen nga mais mom mo mo jité confédération africaine de l'aviation civile manam lépp aviation civile ci Afrique mom mo koy jité barki demb ñu ngi dajé Casablanca euh, kangamu àddina bi yépp taxaw fa mais mu def fa intervention bu bu bu am solo baga bobu demoon na Caire mu ngi jóge Kigali etc donc ñi fi taxaw vraiment ay décideurs réunion ci aviation civile Afrique. libéralisation du ciel africain donc euh, libéralisation ce que nous avons c'est que libéralisation de notre tax billet avion yi moins cher parce que euh, comme vous le ko l'Afrique, Afrique moom soo des avion rek day comme dans un am bëri alors que du non, soo en Europe soit en Inde soo en Chine nous dañuy des avions régulièrement donc avion sont un luxe donc projet euh, marché unique c'est pour que nit ñi gëna mëna mën a ah, ah, njëgu gëna yomb comme ça nit yu bari mëna avion di dem ak di dëkk donc ñi suñu mëne di dem di dëkk dina yok comme comme dëkk dëkk yi ah, dina dina dina yok échange yi et dina tax que kep ku bëgg a ku am soxla fenn mën ko dox sans que mu cher trop ci moom muy oyof daal mm. waaw loolu moo nekkoon objectif atelier bi donc ñu waxtaan ak ñëpp ñu seq aviation civile bi pour expliquer leen naka la marché unique nara ak aussi partager avec euh, les participants euh, lépp loo xamante ne euh, mën na donc mise en œuvre marché unique bi loolu moo nekkoon kii bu jotaay